amewul rek du ñu am un du ñu am valeur ajoutée gëm nañ ko waaye monsieur le ministre est-ce que loolu dafa waral ni dafa war a am industrie yoo xam ne du ñu respecté benn norme bokk ci pollution bi nga xam ne dañ koy def nit ñi bay bay bay provoqué sax ay feebar bi nga xamee ni sa euh, collègue ministre de la pêche jaar na fi maa ngi dénoncé au niveau de Kayar benn société bu ñuy wax société Barna muy benn société espagnole nga xam ne poisson bu pourri lay lay lay lakk di def farine de poisson te poisson pouri boobu li muy dégager day indi feebar expérimenté nañ ko à Saint-Louis dëkk bu ñuy wax jël mbaam nga xam ni ñoo ñu ba léegi ñu ngi ci traitement à l'hôpital Le Dantec te population yi ñoo mujj jóg yëkkati leen ma doon laaj monsieur le ministre yan mesure ngeen préconiser pour société yu mel noonu monsieur le ministre est-ce que société yu mel noonu war nañu dëkk ci biir ay kër parce que comme ni ko suñu sunu ab Ablaye maxtaar Diop waxee li leen gën a arrangé ñoom mooy ñu dëkk ci nit ñi parce que transport ku nekk xam na ni bu bokkee ci bu bokkee ci euh, frais wu ay société ay usine day yokk seen charge donc li leen gënal mooy ñu jege nit ñi mais est-ce que ñu war nañu jege nit ñi est-ce que ñooñu am nañ autorisation dëgg la dinañ am licence dëgg la mën nañu am autorisation wu secteur bi mu concerné muy pêche mais yaakaar naa ministère développement industriel war na ci bokk te am na lu ma la waxoon commission newoon naa la en commission dañ nit ñi dañu weesu RSE li ñu bëgg mooy yow mi nga xam ne yaa yore mi les PMI nga fexe ba au de de sa mais sociétés yi surtout nag étrangers yi véritablement parce que li ñu mën ko dimbale nationaux yi ñu mën ko mais suñu demee ba ñëw bu ñu joxe na nañu fexe ba intégrer les PMI PMI ñëw jàng ci transfert de technologie bi am ci bénéfice bi intégré sax action yi intégré capital bi bu boobaa ñu mën a sentir ni Sénégal lañ nekk kii kat gan la mais mën nañ koo xajal loolu daal monsieur le ministre bëggoon naa bëggoon naa ci insister bu baax a baax monsieur le ministre ma ñëw ci législation du travail te yaa ministre du dialogue social yéen a koy bokk parce que gis nga monsieur le ministre industriel yi ci réew mi ñu ngi lakk dëkk bi surtout avec le travail des femmes le soir respecté wuñu benn législation du travail wu wuñu nit ñi respecté wuñu femmes yi ñu ngi leen di utiliser di abusé wu ci ñoom te loolu nag yéen ñu yore secteur bi yéen ko war a réglementé yéen ak ministère du travail monsieur le ministre du travail am na ay inspecteurs yoo xam ne ñoom am nañ jaxlaf gu tey ne dañuy génn guddi dem di inspecter ce qui se passe dans les dans les dans les dans les dans les les usines mais am na ci industrie yoo xam ne ku mel ne industrie chimique du Sénégal mais fan la teg même chauffeur mu di ko jël Inde di ko indi mais Sénégal ku leen dàq dawal oto yi nga xam ne fii la ñu nekk nekk ci suñuy tëli xam nañ ni ñu koy dawale mais bu ñu bëggee seen bakkan ñu nit bëgg nañ suñu bakkan mais je pense que personnel subalterne bi nañ ñu ko bàyyeel te monsieur le ministre loolu yéen yéen a ci mën a dox seen tànk tubéy Euh, taxaw ci ba nga xam ni nit ñi effectivement loolu dinañ ko dinañ ko mën euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant je vous remercie madame la président